asalaamaaleykum nuyu naa leen yéen ñëpp euh, fi may commencé sama kàddu mooy Aliou Cissé bu mu seetaan lii ba tax mu ñëw fi ne day jéem a recruter benn joueur fii joueur yi fi nag dañu seer dama bëgg mu xam loolu nag joueur yi fi nag dañu seer Aliou Cissé laay waxal de na ma déglu fii joueur yi fi nag dañu seer yomb ñu de bu mu yaakaar ne dañu yomb mu ñëw fii di jëmma a man kese kese kese kese man mën naa jël coupe d'Afrique waaw lu leer ndax fii nii chaque jour damay dugal au moins trente bit lu leer la wax moo fi man bi ci des nag mooy su bëggee su ñëwee mun naa ko jox sama doom pétin moom au moins mën na dugal au moins ay quarante bit <laughs> bu ñu gàññewul coupe du Sénégal rek xaw ma coupe coupe d'Afrique ci moom la